waaw ñu ñu ñëw. ah déedéet bàyyi ma bàyyi mu toog ba la mool dama la ne mool. waaw da ngaa dellu Touba tey da ngaa dellu. da ngaa dellu Touba. Touba Mbacké da ngaa gën a dellu teel. waaw waaw waaw. mais Ngo. da ngaa tuddee. coow. Uy. oui. maa ngi nice. nuyu nañ la. mais bilaay fay naa. macha allah mais yéen a ci daal. sant yàlla naka. kilifa. naka réew mi naka ngeen. mbaa xol bu naqari bi ma fanaanoo fanaanoo. ah man moom laa yor moom la ñu yor. kilifa yi boo njabootee nag day gën a métti. ndax yaa ngi ci jàmm. waaw tawatuma de waaye xol bu naqari moom laa. Massa bari nga ci morom. Mhm. xol bu naqari boobu nga fekk ñi ñëpp pour ñu booy xool nag mën nañ toogee. daal mën a wax ta noonu lañ toogee ñoo ngi ñëw léegi nga wax ñu lan moo la metti waaw ñu maa ngi ñëw léegi ni ci yow ayca Ngoné. donc je disais que ministre de la justice ay cadres responsable tenir. Mhm. ci euh, boobu les points de presse. wax ne daal moom du ko ñuy def loo wala ku ñuy dindi loo. loolu moom bu ko waxee xel day daal. Mhm. parce que dañ fi gisoon ay ministres yoo xam ne. dañuy agir ci ay ordre téléphone bi mhm. téléphone donc loolu dafay xaw a andi li nga xam ne moom mooy problème. Mhm. mais dama bëggoon ñu taxaw seetlu booba tey ku ci nekk wax nga ci sa point de vue ci li Ousmane Sonko wax. Mhm. Euh, PM ci li keneen ak keneen wax. mais dafa am ay kàddu yu am solo yoo xam ne dafa baaxaat ñu bàyyi ci xel. muy discours bi nga xam ne euh, ministre bii di Abdourahmane daf ko wax maa ngi koy wax sànq Pape Ousmane. Euh, ci situation bi nga xam ne fekkee na ko ci ci dëkk bi. Euh, li nga xam ne wax na ko day bari mais ñu ñëw ci constat yi li ñu mhm. constaté mooy rapport situation des finances publiques mhm. bi révélé que la dette publique au Sénégal ak déficit euh, budgétaire yi euh, dafa gën a kawe. Mhm. ci nga xam ne dem publié nañ ko par les autorités sortantes ci communiqué bi nga xam ne période 2019. jàpp 2023. déficit budgétaire bi ñu annoncé par une avec une moyenne de 5 virgule 5 pour cent du PIB. ci période bi nga xam ne mooy 2019 2023 mais en réalité il a été en moyenne de dix virgule un pour cent soit près du double. moom ministre bi di Abdourahmane Sarr moom moo ko daal di wax. Abdourahmane Sarr waaw mais xam nga lan moo ci gën a doy waa Pape Ousmane. Mhm. nee la dette de l'État central hors secteur parapublic est de quinze milliards six cent soixante quatre. Mhm. soit quatre vingt trois virgule sept pour cent ci PIB bi alors que dañu annoncé woon treize mille sept cent soixante douze milliards soit soixante treize virgule six pour cent. mu mel ne tey milliard dafa perte valeur am. parce que lu ñu daan dégg ci ay milliards milliards ba fekkoon dafa am fu ñu ko def sax askanu Sénégal mën ko gis boobaa milliards yi du du perte valeur am mais tey war na itam ba wax ci li nga xam ne moom mooy conséquences yi tey bu ñu demee ba ñu wax ne dañuy falsifier ay chiffres wala di jël ay milliards di ko def feneen foo xam ne du foofu la waroon a dem di wax ay kàddu yoo xam ne du dëkk di dóor yi waaye itam di ko wax ñenn ñi nga xam ne ñoom ñooy partenaires yi tey état bu Sénégal bu fekkoon da neex. wala ñoom ñi fi nekkoon bi ñu fi nekkaatoon loolu du feeñ. Mhm. du ko mës a gis. dafay wéy di continuer. tey ñi fi ñëw naam xam nañ ne loolu am na te bu ñu ko waxee mën naa nekk sax risque nag ci jafe-jafe yi nga xam ne mhm. askan bi war nañ ko mën a dundee mhm. mais dañu choisir wax dëgg bi comme ni ko PM waxee ne Bassirou Diomaye nee na du nëbb dëgg lay wax ci mandaawam waaye bu jeexee itam dëgg lay wax. mësuñu gis état bu Sénégal yaa ngi koy wax sànq xaw ma kan ci yéen le gouvernement à la presse. ñaar la la fi nekkoon xaw ma ñett mosuñu ci wax yu mel nii mm-hmm. benn bi ñu ngi ko defoon ci benn hôtel beneen xaw ma feneen ak feneen exercice bu mel nii démb am na benn taskatu xibaar bu doon poser euh, question dafa jaajëfal euh, PM ne ko exercice yu mel nii bu mu fi faral di gëj parce que nit ñi war nañoo xam léegi nag moom dafa am lu mu wax te une la wax parce que dafa ne lépp xaju fa kon bu fekkee da ngeen a tiit jàppale ne di ngeen gën a tiit bu fekkee da ngeen gën a choqué parce que lépp xajul woon démb dañu jël ay détails wax ko di xaarandi peut-être yeneen ministres yi ak yeneen directeurs généraux yi ñoom it seen pàcc ñoo wax ko. c'est ça. moom dafa cof ubbi baal bi tey ngeen tiit waaye dafa am nag loo xam ne dafa jax taxaw seetlu moo ñim ci tudd muy ancien président de la république Macky Sall. tudd Amadou Ba. tudd Abdoulaye Daouda Diallo. tudd Moustapha Ba. ñoom ñëpp ñu nekkoon ministère des finances tey dama yaakaar ne bu amee kuy tontu sénégalais ñoom ñoo war a génn wax keneen ku wax concerné la ndax xamoo milliards yooyu fan la jógee xamoo fan lañ ko bindee te ku ci wax rek da seytaane wax ci ci lii leader politique wala keneen bul yónni sa répondeur automatique mu tontu la bu nekk opposant nga tontu ci ñi ñu indexé tudd seen ay tur kenn cofu leen dañ leen a tudd tey ñooñu dañoo war a génn leeral askan bi ci dëkk bu normal ñooñu ñëpp bu leen tuddee ñu nar a campagne waru ñoo campagne fii Sénégal kenn leen ko may parce que mënu la tuumaal lu mel noonu ñu bàyyi la ngay dem ne dangay ngay dagaan baaju askan bi mënul nekk. dañuy wax ne justice dafa am temps wam kenn du parax parax ndir yi mais yu mel noonu bu amee dañu war a taxaw lépp yow élection moom mënoo cee bokkati te loolu tam Sénégal ko war a def képp koo xam ne épingle nañ la ci wàllu détournement de deniers publics ay blanchiment de capitaux waratoo jiite askanu senegal waratoo nekk ministre waratoo nekk maire waratoo nekk directeur général loolu dañ ko ci war a te ñoom ñu fi nekk ñoom ñoo ko mën ñoom ñoo ko war a mën a def. wax nañu lu ñu wax wax nañu ban état la ñu fekkee fii ci Sénégal ku bu Ousmane ko démb di wax ay ministre di wax képp ku naafequl tàpp nga sa gémmiñ wala nga toog benn moment boo xam da ngay wax ñun ban Sénégal lañ nekkoon. journaliste yi sax dañoo jol. waaw léegi nag xam nga comme ñëpp dañoo ba def seen yaa ngi gis benn photo boo xam ne Père Modou Guiro ni koy gis. moom daf peut-être mën a def geste def ko mais da ngay wax ñun nan ñoo ñu jiite woon. Mhm. ndax ñooñu tey amatuñu taxaw ak askanu Sénégal yi leen wax mhm. ah dañoo war a leeral nag. ku ci mel ni Amadou Ba c'est pas la première fois ñu koy tuumaal yu mel nii. absolument. boo njaay am na ci ay inspecteur euh, euh, impôt domaine xam ma ay inspecteurs yu nekkoon ministère finance yoo xam ne jàpp nañ leen ci ay mbir yaa ngi dégg kooku naan xelam neexul woon. Ah. keneen ak keneen ak keneen ak keneen yoroon nañ ci ay ndomba tànk léegi nag bu leen kenn tontul soxlawuñu def conférence de presse kenn di leen tontul. Mm-hmm. soxlawuñu ay nen soxlawuñu ay gi fan la dugg ñi fi yoon deewu ñu gàddaayu ñoom ñu ngi ñoom ñoo war a ñëw tey andi ay leeral. sénégalais yi ngi leen di xaar ñu andi ay leeral mais képp ku ci jàpp te jàppoo Macky Sall jàppoo kenn ndax mooy ndey ji mil. c'est ça mënuñu def loo xam ne yëgu ko signature am dafay impacté ci ñoom. Mm-hmm. donc moom ci boppam ku jàpp te jàpp comme moom nag nekku fi ñoom ñi doon liggéey ñoom ñoo fi. ah nañu ku nekk rek daal di répondre say actes yi nga xam ne yaa ko def. mën nañoo jàpp ginnaaw ñu jàpp cuuti alors ñu daal di kilifa Pa Ousmane balaa ngay ñëw fi ne nii xam naa ne yàkkamti nga ko kilifa ñoo man mbégte ànd ak yow ci euh, plateau bi ginnaaw boo nuyoo ba noppi sa jàngat ci sortie bi nga xamante ne Ousmane Sonko amal na ko démb. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu sénégalais yëpp. yi mm-hmm. nekk euh, ci réew mi ak yi nekk Maroc. Mm-hmm. <laughs> waaye lu tax nga taamu ci waa Maroc. waaw ba pare ba pare fixé fixé Paa Ousmane. kaamam bii long. Paa Ousmane bis bi daf ko doon xaar. pensé ma Paa Ousmane ne dañu xam benn vidéo bu ma envoyé. Paa na ko ba mbokk kay. dootul de ba léegi yow lan ngay rek. waaw parce que def kat la. Hmm? def la lan lay demee. non xala da nga comprendre stratégie bi ñu def contre feu lay def Kaolack bi lay bañ mu feeñ. <laughs> non Kaolack moom maa ngi fa woon yaa ngi woon mi fa woon. copain hmm, du moom sañoo faa am nag li ñu dund ci Pape Moussa sañ ko dund ci yow. kii non dafa paan non kër daa paan. ah ngoone gis na la. wuyu ma maa ngi jàppale. non du ah. crevé bi mais du ma wax ah. dara. <laughs> réew mi li fi wax gum daa bëri rek doy ñu sëkk. Pape <laughs> bi am démb rek boo ko tegalee da ngeen koy écho da koy écho ba beneen. bu leen xaar <laughs> kii naqar la fanaanoo. Hmm. nañ ko bàyyi mu ñëw wax ñu lan moo tax mu fanaanoo naqar. donc en fait euh, am na lu ci xamoon. lii la da nga may baale ci kanam. Ah, benn ngi nii nenu baxal la. boo nee ko indaale. ñaata nga ko jëndee. 125. nga ko jëndee 125 bu ñu baxal ba pare. waaye mayuma poobar nag. waaw ah, bu buñ bu la mayee poobar rek yooyu ñaata. xam naa ci lay jar fanweer dañ la koy fay non non du jar fanweer ah, dañ la koy may. peut-être ay secteur la mais suñu secteur ñun 125 lay jar. alhamdulilah kon. mais on m'a envoyé sa sama xol bi dafa naqadi ma fanaanoo ko xëy. dama tax sa xol naqadi kilifa pousse sa téléphone tuuti mu ñëw ci kanam. mais ki dagg sama xol. kan la mooy cœur brisé. kan la. cœur brisé. waaw ah, Aïssatou wala Ramatoulaye. cœur brisé xaw ma ci mais cœur brisé. waaw. vraiment brisé actrice principale Ramatoulaye la ak Nefatit Nefatit mooy ku mujjee ñëw. mooy jeegu naar. mooy ki ki gën a wàll. jeegu naar. jeegu naar ci naf nef non man Aïssatou laa xam ak Ramatoulaye. am na ci koo xamante ni day. xam naa ni euh, bu dul feeñ euh, moo moo mooy scénariste bi. moo ko bind. waaw moo ah. bind. ki Cheikh Ba doon wax la wala. moo bind de euh, mooy scénariste cœur brisé. mami xanaa xam nga ki muy wax. xam nga <laughs> mooy ku xolam yàqu. <laughs> nee na nee ma déedéet xam nga ki muy wax. mais sérieusement <laughs> ñoom Macky Sall après laay ñëw ci ñoom. kon ñëwal ci cœur brise ba pare. parce que am na loo xamante épisode la jalousie. sénégalais yi nag ñoo ko war a fajal seen bopp. oui parce que 2012 ba 2024 ñoom Macky Sall li ñu doon def ak li ñu def lu ci bari bari bari bari bari nëbbuñ ko da ko doon gis ni jaxaran mhm. mais quand mhm. euh, amuñu woon ñu toog. ci kaw gis les chiffres exacts mun ñu ko wax comme ni ko gouvernement bi defee démb loolu moo ñu umpoon ñaata la ak naka lañ ko defee mais nous tous xamoon nañ ni ay milliards